أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن mbokki jullit yi rawatina mbokk taalibe yi yéen a ngi ànd ba tey ci seen juróom-ñaareelu jataay ci téere bii di wa kaana nasrul muminin ngeen ci ànd ak seen mbokk Moxtaar Jum ñu gën koo xam ci Njaga Jum taalibe Sëriñ Njaga Sylla imaamu Daaru Salaam maa ngi ziar ñëpp tey ndokkeel ci màggal gi ñu bàyyee ko di ñaan yàlla nañ ko yàgg a at yu baree baree bari te daje taw feexu sëriñ bi di dellu di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom gën ko fee yàggal lool te mu ànd ak wér ànd ak ñun ñëpp liggéey bi e, te ñu daje taw tawféexu sëriñ bi e, dafa mel ni nag koroog jëloon nañ. ba yemoon ci xafiidu sun ummata xayri mursali an alladina kafaru bi rusuli loolu moo nekkoon fanweeru fanweeru lu bayit ak benn 31 vers bi tey nañu war a tàmbalee ci 32 32e vers bi maanaam fanweer ñaareelu euh, bayit yi jël nañu wakkaan xàqan gu njëkk gi ci way wi ci xasida gi war a ñëw ci ñaareel bi ba jëloon nañu wa kaana xaa xaa gi ci lañ yemoon ci xafiisu tey ñu war a jël xaqan xaaf gi xam nga dafa am sadda kon ñaari xaaf lay doon loolu mooy 32e lu bayit bi ak 33e lu bayit bi léegi 32e lu bayit bi mu ne mu daan ne qut lahum nasra al adida ajila wa bashiran hum aajilan wa aajila mu ne xut yàlla nga ñoddil lahum ñeel leen an nasra ndimbal al aziza bu màgg bu tedd aajila bu gaaw yàlla nga defal leen ndimbal moom xeetu yonent bi ñoom lahum mooy ñoom ummata xayru mursali xeetu gën gi yonent yàlla nga leen defal ndimbal gu tedd gu màgg tamu gaaw nag sunu borom yàlla nga ko def mu gaaw wa bashiran hum te nga bégal leen aajilan fii ci àdduna waa aajila ak ëllëg yowmal xiyaam yàlla nga leen bégal fii ci àdduna bu ëllëgee yowmal xiyaam tamit nga bégal leen aajil mooy lu gaaw te àdduna dafa gaaw nit ki fi fiy dundee ak fi mu fiy màggee bu guddee fan tamit day dellu wuyu ji borom bi bu gàttee fan mu rawati kon àdduna dafa gàtt te li ñuy wax gudd fan tamit gën gaa bari téeméer soo ko xoolee ak dund ba faw dangay daal di xam ne kon lu néew la kon nga bégal leen fii ci àdduna mooy lu gaaw li ak nga bégal leen fële yi nga xam ne ñi ab dig la suñu borom promettre leen ko muy promesse sunu borom aajil ab dig ëllëg tamit nga bégal leen loolu mooy 32e bayit bi 33e bi xut li dawil imaani maa yazidu xubbaka yaa man indahu mazidu mu ne xut yàlla nga ñoddil li dawil imaan yi borom gëm yi ba tey mi ngi dellu siwaat ci al iman ak islaam ak ixsaan yàlla nga ñoddil boroom gëm yi maa yazidu luy dolli lépp lu leen di dolli rek xubbaka seenu bëgg ci yow yàlla nga leen ñoddil ñoom way gëm yi way jullit ñi ak luy dolli ko luy dolli seenu bëgg ci yow yaa man yow mi nga xamante ne àndahu li yow masidu ak la li ne fi yow du jeex àndahu fi yow masidu day dolleeku rek du jeex ba faw chaque saa su ne rek muy dolleeku li ne fi suñ borom du jeex wa maa indakum yanfadu wa maa indallaahi baaq li ne fi yéen àdduna yéen ñu doomu aadama yéen ñi ne fi li fi ne fi yéen day jeex waaye ne ne fa borom ba tabaaraka wa taala moom day des du jeex 34eem bayit bi mu sëriñ bi ne agni sawil islaami an rukuni ila idaaka wa ani sukuni agni yàlla nga doyloo sawil islaami ñay jullit yi gis nga ko iman islaam ñi nga xam ne woy womatu lañ yàlla nga leen doylool lool ani rukku ni walis ñuy jeng ilaa idaaka jëm ca noon ya jëm seen noon yàlla nga defal ki nga xam ne jullit la ki nga xam ne womatu na yàlla nga ko may lu mu doyloo walis muy jeng di dem ci noon bi wa ani sukku ni ak mu am ci ak dal nga may ko ak ak dal yàlla suñ borom waxoon na ne laqad radiyallahu anil muminin iz yubayi'unaka taxta sajara yàlla sunu boroom gërëm na ñi nga xam ne jaayante nañoo ak yonent bi sallallahu alayhi ci suufu garab ga bay aaya ba njëkk aaya ba di jeex mu ne wa anzala wa anzala sakinata alayhim yàlla wàcce na ci ñoom ak dal wàcce na ci ñoom ak ak dal sëriñ bi nag ne yàlla sunu boroom yàlla nga defal ñu doylu ñi nga xam ne way wommatu lañ way jullit lañ lu dul ñuy jéng di dem ci seeni noon nga may leen ñu doylu ba amok dal ba amok dal 35e bayit bi ci page 9 ala nabiyi wa rasulil multaxat salli wa sallim yaa mubida man jaxat ala nabiyi yàlla na nekk ci yonant bi lan mooy na ci moom nga dem ci ñaareelu xàbb bi solli yàlla nga dolli ci moom tedd wa sallim ak kóolute na bi ci yonant bi ki ñu solo wa rasul te yónni ko al multahat moom mi nga xam ne daa wéeru ba raw moom mi nga xam ne raw rawukaay la xam ne ku ci jàppandu ci moom rek da nga mucc ku jaar ci ak ndigalam tamit da nga mucc al multahat mooy rawukaay bi mooy muccukaay bi mooy ki jara wéeru ki jara doyloo nga xam ne mbiram yépp a doy yaa mu bii de yow mi nga xam ne yaa alak man jaxat képp ku la weddi waaw da koo daanale woy bi ndax sëriñ bi dañoo sàkku ci moom mu ñaanal leen lam leen di ñaanal lam leen ñaanal nag ci sunu boroom mooy mu bégal jullit yi ndimbali dimbali xeetu yonantu bi may leen ak doylu akuk dal defal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moom moo yàlla yónni ci jaam yi di mujj yonantu mu defal ko jàmm ak xéewal yàlla mi nga xam ne moom mooy alak ku ko weddi mu tekki ne euh, kon yàgg naa ñaanal xeet yonantu bi sallallahu alayhi wasallam xasida yu bari day ñaanal xeet yonantu bi wala rabbi maa yasrahu mbindeef yëpp sax lay ñaanal foofu xoolal farrij bi jaahil Mustafa an ummati xeet yonent bi sallallahu alayhi ñëpp lay ñaanal yàlla yërëm leen xeet yonent bi yëpp lay ñaanal yàlla yërëm leen mu mujjëlee lil montaxaa walaali wa sahbil kiram aw si salaamayka wa jutli bil maram loolu mooy 36e bayitu page 9 nga xam ne tey foofu lañu ñu yemandi incha allah ba beneen yoon yeggale xasida gi mu ne lil montaxaa euh, yàlla na nekk ci ki ñu tànn ñëwal ci ñaareelu xab bi aw sil yàlla nga àggale salaamayka xéewali àdduna ak xéewali alaaxira muy jullik yàlla sunu borom ak sëlmalam ci kooku nga xam ne tànn nañ ko mu yonent bi salaa salaam walaali ak waa këram wa sax bi ak ay saxaabaam alkiraam ñay way tedd wa jut lii te yàlla nga ma may bil maraam càkkutéef gi lii ma la sàkku ci yow bëgg xettali xeetu yonent bi xetti leen ci jafe-jafe yu ñu nekk lii may sàkku nag moo ko may te yàlla may na ko ndax ñooñu lañ doon sàkku yàlla defal na leen ko ku ko sàkkoo tamit yàlla defal la ko salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ba beneen incha allah ngeen doon naan ak seen bokk Ndiaga Dioum lu ci jub ci yàlla suñu borom la bàyyeekoo salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.